écoute sur RFM. jërëjëf Abdoulaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi saa nekk RFM rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp daan coronavirus ak rajo Futur Média di leen fàttali euh, loxo yi bu leen di euh, tay ci euh, raxasu gi ci lu bari yooni yoon ci bëccëg gi ndax ni ñu koy waxee jàngoro jeeg doom ja fa lay bawoo comme dañuy faral di laal suñu xar kanamit it euh, moo waral masque wu gi euh, ndax mu bañ a jaar ci fu mel ni suñu gémmiñ walay bakkan lool it am na solo te it ñuy fexe di bàyyante ay distance waaw bu dul dara sax tàngoor wi ak euh, di di di sorianto da ciy baaxas lëf naka noonu it geste barrière yooyu nga xamante ni daal mooy pexe genn gi amagum du ñàkk du ren du du sunguf soo xamante ni gisagum nañ ko ne saafara kon moytu rek ba yàlla ñëw. tey dañuy waxtaanee nag wàllu ñi nga xamante ni ñooy euh, ñi yëngu ci wàllum paj waaye ne ci euh, lu mel ni mairie yi euh, moo waral ñu invité ku mel ni Sidé Ndiaye moo jiite FGTS bokk ci mbootaay gi di And gësëm sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Sidé njaay yaa ngi en direct RFM ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar bu baax di nuyu sa yëpp. jërëjëf di personnel bi nga xam ñoo ànd ak yow parce que liggéey bi ngeen def rafet na tool contribution bi ngeen def de qualité la mhm. parce que yéen a ngi nit ñi tout à l'heure bi nga rappelé mesure barrières yi mhm. ma véritablement seen liggéey moom mhm. ah kenn mënu leen fay yéen sax prime yi wax sax sax ci laal parce que <laughs> parce que liggéey bi tous les jours ah. ci jërëjëf ah, vraiment <laughs> Sidi jërëjëf kon ñun tam war nañu def euh, port brassard rouge pour am ci prime yi ah, en tout cas <laughs> maa la ko wax ci ci suba gi euh, euh, ñaata waxtu wala fan lay doon ak lutax lutax ngeen ngeen tak brassard rouge. wa xam nga ni bi mbas bi ñëwee ñun and gay sama dañu ne dañu wara ajjal ajal li xeex bi manam suñu plan d'action yëpp ñu arrêté ko parce que tay bu mu nekk ni askan bi mo leen mo leen wara a jiital. Mhm. te mbas bi comme vraiment dafa law ci aduna mi. indi ay situation yu kenn comprendre donc ñu ne dañu arrêté yëpp. Mhm. légui bi euh, mbas bi commencé ñu trou ni daf ñu recevoir woon palais. bi ñu recevoir palais man maa ko posé problème indemnisation mhm. travailleurs yi man ñaat ñeenti responsable syndicaux ñoo fa nekkoon mhm. ma ne ko xanaa di ngay joxe ay prime spéciale pour les agents ne naa ko naa ko def mu daal di décider que nañu jox travailleurs santé yëpp en tout cas prime spéciale mhm. mais prime boobu bu ñëwee mu ñu def comme ni ñu daan defaree ah mini agent municipaux yi ñi nga xam ne ñu ngi concours santé bi ñoom bokkuñu ci dara ñu daal di commencé distribuer xaalis bi jox ñu ne ma daal di rapproché au ministère de la santé ma leen nag loolu mënul continuer. Mhm. parce que yéen ñun ñëpp ci santé lañ bokk. mairie ci état la bokk parce que mairie. Mhm. décentralisation moo tax ñu naan mairie. mais ci santé publique ñun ci lañ bokk. te lii c'est pas la première fois Assane. Mhm. yaa ngi rappelé bu ñuy xeex. prime de motivation yi ñu joxoon fii agent yi. damaa mujjee xeex pendant un mois. def ay marche ay tugaan ñaxtu pour ñu jox ñu lu ñu moom. Mhm. donc je crois que vraiment jot na état bi xam lan la bëgg. parce que moom moo décentralisé santé mhm. jox ko compétence ci collectivités locale mais mais d' abord ñu ñëw ci état bi bi bot ñëpp évidemment moo war a jiitu ci lépp waaye que disent les les textes est ce que mairie yi ñoo leen war a jox wala état bi ci boppam. non prime bi c'est une prime spéciale. ok parce que dafa am fonds spécial. Mhm. Covid foofu la ñu loger xaalis bi. Mhm. donc pour mu gaaw ñu mën a primer nit ñi. parce que agent yi ñu bañ a démotiver wu. parce que actuellement ni euh, personnel yu bëri sax dañu contaminé. Mhm. muy loo xam ne doy na waar. donc loolu moo tax ñu loger ko ci fonds spécial pour mu gaaw pour bañ a am procédure parce que bu ñu ko doon jaarale ci maire yi. Mhm. dafay yàgg dafay yàgg dañuy indi ay frustration donc bu ñuy démarrer euh, paiement prime bi. ma daal di rapproché ministère bi ñu ne ma non il faut nga joxe liste pour ñu donc man maa obligé. jël Sénégal yëpp woor nit ñi jël seen matricule de sol seen compte bancaire te compte bancaire bi vingt quatre caractères la hmm. mais liggéey muy muy liggéey bu métti maa ko def yëpp mën naa suñu équipe yi ñu déposé ko ministère de la santé hmm. bu ñu ko déposé ñu ne ma am na compte yu am erreur dindi nañ ko maintenant extra ma ne amul problème dinaa ko reprendre ma hmm. reprendre deuxième liste première liste bi nag jot nañu cent mil benn yoon muy ñaari yoon cinquante mille

loolu mooy wax mën nañu am une idée ci ci yan gox ngeen ngeen nekk yéen en tant que ay agents ci ci poste de santé yi la ci yan gox la. pour ñu ñu déglu xam centre de santé yi. centre de santé yi yëpp. Hmm. ñun ñoo fi nekk ak poste de santé yi. dafay tekki bu ngeen tànk bu ngeen tey ji ñaxtoo wala bu ngeen demoon ba téye seen loxo ci liggéey bi euh, dina dina sooxee kër docteur. non dina sooxee parce que fu mu nekk nii. lolu ken ñaanu ko yàlla. Mm. mais bu ñu obligé. Mm-hmm. ñu def lolu parce que lu ñuy def ni yeglu la. parce que boo gisee sax ñu grève pour le moment dañu né oui brassard rouge arrêt travail deux heures de temps. Mm. après on va déposer un préavis de grève. ok donc lolu motax ñu ne fu mu nekk nii ñun yëpp dañu wara moytu coow ci période bi. Mm-hmm. parce que Sénégal tal na leneen lolu ay ciow mais finalement da fay ni ay nit buñu ñu responsabilité dañ ko assumer jusqu'au bout. Mm-hmm. fay manquer des responsabilités mooy ñi nga xam am nañu droit. percevoir prime bi doo leen jox dara. Hmm. nga bëgg a continuer di fonctionner ba pare xaalis bi kenn du ci xam naka naka lañ ko utiliser. li hmm. nga la ASN problème bi yëpp hmm. ko utiliser. mais nañu ko wax mu leer askan bi. c'est des fonds publics. secret mënu fi am nañu kan la ñu fay kan la ñu fayul pourquoi ñu def loolu. c'est ça ñun moo tax ñu ne bu ñu fi kiiwulee danañu adressé président la ci boppam moo accordé prime bi. mënuñu discriminer continuellement. di mais maintenant comme am na ndorteelu ak pay ça veut dire que euh, problème bi euh, xeyna xootul noné bu fekkee ni ku nekk de son côté def na effort rek parce dama fogon ni dañ na dañ nan amu droit à cela wala euh, c'est une prime inexistante mais comme amna ba ñom nangu na fay ben patch bi suñu góorgóorloo as tuut yéen tam ngeen jege ji leen kon ne waxtaan yi buntu feñ xam nga prime bi légui mo arrêté wu dans 6 mois lañ waxon waxoon. six mois yi presque daanaka mat na. waaw mais c'est déjà prévu dans le budget de toutes les façons duñ ko duñ ko lekk dañ koy joxé <laughs> waaw loolu mooy wax ji. ah voilà wax ji mooy est-ce que dinañ ko jot. Hmm. c'est ça parce que ñun suñu inquiétude yëpp boo ñu yëngatu dañu ne ah léegi fen fen waa bële bu jotee rek c'est fini. lan moo tax ngeen dem ba ci ba ci brassard rouge de façon radicale xanaa xanaa buntu waxtaan yi dafa tëju yëpp. mais c'est-à-dire doo xam ku lay renseigner ci kañ la ñuy fay. Hmm. personne. Hmm. man def naa effort dinaa woote ministère pour xam kañ la ñuy fay nga ñu ne non dossier banque bi bërëb sàngam mu ngi fi. mais en tant que mais da ngay war a yelwaan en tant que responsable de d'une coordination de syndicat wala dara quand même war ngeen am benn point focal au niveau du ministère bu ngeen voilà. non man point focal bi ministère mooy DRH bi. direction de ressources humaines nga xam ne moom laa déposé si. bon beneen accès bi mooy finance ki ko yore mooy mu ñu ko yore gage. oui moom moo war a def virement yi. Mhm. donc yooyu loolu fon fa laa fa ne yem ak ministre peut-être. Mhm. parce que ministre moom laa jox document yi pour mu wàccee ko. ok ci service yooyu mais service yooyu aussi dañu am limite. parce mhm. que bu leen ministre waxul na ngeen fay et cetera mënuñ fi def dara. donc sa responsabilité dafa limité. très bien ñoom ñooy enregistré. ci gàttal yan correctif ngeen di xaar laaj bu mujj bi. ah yan yan jubbanti ngeen di xaar rapidement. yan waaw li ñu xaar mooy nañu nañu gis ñu fa nekk ñu war leen fay nañ leen fay. Mhm. parce que ñun vraiment bëgguñu coow bëgguñu indi ay tolof tolof. Mhm. bëgguñu indi ay loraange ci askan bi. parce que vraiment ñi ñëpp dañu war a actuellement nii. ñun yëpp dañu war a jublu ci xeex mbas bi. Mm-hmm. parce que mbas baa ngi fii. du mbas bi ah, ñu ngi ñu ngi nawet si buru dina am grippe dina am leneen dina am. mais ren dina am. te mm-hmm. période bi pali pali bi commencé na te pali bi tamit gis nga symptômes yi comme euh, mbas bi. Mm-hmm. donc véritablement est ce que jaadu na ñu jël des milliers de travailleurs. def leen dans le désarroi ñoom ñu war a yëngatu pour lan. alors que xaalis am na bu dee xaalis am na fi parce que c'est ça aussi. parce que li muy niroo nii dafa mel ni dafa jeex. Eh. mais ñi ko jeexal. wala ñi ñu ko jox. mais moo may tooñ dinaa dinaa lancer opération gox <laughs> parce que <laughs> mais ñi ko lekk di war di lekk mais nañ leen identifier. mais balaa ngay lancer opération aussi da ngay defal leen radio rajo xool ndax gox dañ koo seex nag yow tamit. Ah, bal bal <laughs> en tout cas ñu ngi lay bu baax jërëjëf Sidy Ndiaye bu ànd gësëm ñu koy gërëm ànd gësëm maa ngi tooñ Mballo Dia ne nañ euh, ministère tam ñu daje fenn fi mënut a de parce que mbas mi luñ ci dootuñ sax tal koppar yi ci boppam bala nga ne naam ne fa Lamine Ba maa ngi lay nuyu suñu naatangoo ca Ziguinchor lamin yaa ngi ci waxtaan yi euh, yaa ngi direct de Lamine moytul euh, wax fi sa montant facture Senelec wala luyaas bi nga war a fa ak yooyu <laughs> maa ngi lay ziar bu baax naka waa Ziguinchor ñu ngi fi alhamdulilah. ah jërëjëf dégg nañ Sidiye Ndiaye ñu koy gërëm bu baax ci bokk gi mbokk ñun waxtaanee amoon nañ nag yéene ànd ak euh, kilifa yi ci ministère euh, de la santé jarul tudd kenn parce que du ak lànk ci ñoom ah. dañ leen woo jotuñ leen rek ñoom it dañoo bari yitte euh, notamment ki ñu dénk wàllu direction ressources humaines woo naa ko. xëy na xàmmewul sama numéro xëy na jot gi la mais bu ñu ko amee rek antenne yi moom ubbiku na ngir ñëpp ngir daal di gën a mun a yaatal waxtaan yeeg pencoo gi. Lamine situation bi mbas mi Ziguinchor euh, ci njëlbeen doon na ami jafé jafé wala euh, ak tan amna présentement. waaw euh Hadj Assane li nga xamné nak mën nañ ko japp euh, ci li jëm ci walu mbass bi te Ziguinchor boo euh euh fanyé passé. Hmm. ministère de la santé saa su daan joxe li nga xamné modi euh bilan quotidien bi daa nga dégg bu baax a baax Ziguinchor ci kaw. Hmm. bu nekkul woon première position sax moo nekk deuxième wala troisième mu doon li nga xam ne nag euh, def nañ ko fi daanaka dix jours. oui Ziguinchor euh, dem na. Euh, ba jamono bi cinq cent onze cas maanaam juróom juróomi téeméer ak ak benn doomu adama yi nga xam ne amee nañu feebar bi ci situation wu démb. Hmm. donc ci région bi. donc des fois am na ñaari fan ba ñetti fan yi nga xam ne seetlu nañ ne cas euh, xaw na wàññeeku bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, diggante euh, li nga xam ne moo di barki dim mm-hmm. dim ak tey. lu leen lu leen may yooyu résultat wala da nga. am nga Ziguinchor am na nouveauté bi nga xam ne bàyyiwuñ ko woon xel bu baax a baax. tey mm. na sax waxoon nañ ko ci xibaar yi mais am na li nga xam ne jotoon nañ ko comprendre mooy ni. Mm-hmm. Ziguinchor xëy na ni ñu ko daan defee ci yeneen régions yi Ziguinchor ak Sédhiou ak Kolda yëpp seen test yi sans. Euh, laboratoire bu nekk daal lañ ko doon yóbbu. Mhm. donc euh, moo tax xëy na capacité de test yi dafa limité woon. léegi Ziguinchor dafa mujjee am laboratoire boppam nga xam ne fi la ñuy ñi nga xam ne amee nañ feebar coronavirus bi wala am ñi nga xam ne ñu ngi joxe ñu ngi wone ay signes. looloo taxoon xëy na test yi yokku woon bu baax a baax ndax ñi nga xam ne ay cas de comorbidité yoon. Mhm. ñëpp dañ leen testé woon bi amee ay signes. xëy na jamono yooyu moo tax il de comprendre que du cas yi ñoo yokkoon mais nombre de test moo yokkuwoon Ziguinchor bi ñu yokkee texte yi yokkee nombre de tests yi loolu am répercussion ci li nga xam ne moo di cas ñuy découvrir par jour. Mhm. donc loolu moo tax Ziguinchor jamono ji mu am euh, possibilité tester le maximum de euh, le maximum de personnes yi nga xam ne amee nañ ligne mhm. bi euh, mais tamit yi nga xam ne. ay cas kon daal du du seen ak parlu ñoom ci wàllu masque yeeg yooyu wala Ziguinchor comme Dakar rek gaa yaa ngi <laughs> xaw ma nu ma koy waxee. Ah, gaa yaa ngi lank gaa yaa ngi ah. lank masque wu. Aja <laughs> San li nga xam ne daal xëy na moom la ñu dégg ku ne moom la ñu fi nemmeeku xëy na sax ni. Macky euh, benn jamono nit ñi daanaka Euh, xawoon nañ ci bàyyeeku bu baax a baax donte sax kilifa yi mooy gouverneur ak euh, préfet ànd ceeg euh, force de l'ordre yi ñu ngi jéem a mm. def seen kéem lay kattan ngir un peu nit ñi mën respecté li nga xam ne moo di port de marché bi parce que mm. c'est ci biir service administratif yi dañ ko fay nemmeeku seen bërëb bi mais ci circulation bi mm. dans le domaine privé li nga xam ne moo di transmission feebar bi dafa bëri te li nga xam ne fàtte naa la ko mm-hmm. xaajatan maanaam euh, autorité dañu changer stratégie un de li nga xam modi euh, euh prise en charge à le suivi à domicile. suivi à domicile actuellement am na mm-hmm. ak euh, juróom-ñetti doomu aadama yi nga xam ne. Mm-hmm. ñoo ngi leen di suivre à domicile. ok donc ñom ñep ay cas la nga xam ne xëy na amee nañ feebar mais amuñu gravité bo xam ne day. fofu tam ça se passe bien ndax demb ma ngi dégg ya ngi dégg docteur Mamadou Lamine Sagna bu biñona né prise en charge à domicile bi ngi mu ngi jaar ci yoon foofu tam Ziguinchor ndax euh, pour téeméer ak juróom-ñett yooyu mu ngi jaar ci yoon paj mi mu jaar ci yoon xëy na sax ni bon du doon lu yomb ci service de santé nga xam ne xëy na seen potentiel demeewul noonu hmm. seen i capacité c'est limité mais ñu ngi góorgóorlu pour def le tour. Euh, pour def le tour ku nekk euh, sa kër ñu jéem a euh, def un suivi à domicile un suivi rapproché. parce que li li docteur wax démb bi c'est valable pour Ziguinchor aussi. seen kii là am na ku nekk à domicile tamit boo feebaree bu wér rek génn sol sa daal dem. Hmm. yenn fait que defagoo test de test de. bu buy wane ni wér wér nga pëng waaw. voilà doomu jàngor gi nekk sa yaram. Mm, donc mm. jafe-jafe boobu ñu ne meeku bu ñu ne moo nekk Ziguinchor. ok moo nekk itamit fa nga xam ne moo di moo di Oussouye waaye li nga xam ne mën nañu ko wax daal mooy. Mm. Euh, Ziguinchor c'est vrai que am na am na am na am na cas yu bëri parce que jam. Euh, Euh, am na temps li nga xam ne seet nañ ko mooy ñetteelu région bi nga xam ne euh, am moo ëppale woon li nga xam ne moo di cas ci Sénégal. Mhm. demoon na sax ba dëkk ñetteel bi tax di demoon na ba supplanté Touba. Mhm. Euh, Diourbel région de Diourbel autant pour moi. Mhm. donc bu mu nekk ni tendance boobu daal xëy na wàcc na ñetti fan yi ñu weesu mais est ce que bu wàcc la wala test ñoo wàññeeku. xëy na loolu dinañ ci gë dinañ jéem a jege ñi nga xam ne ñoo yore lépp jëm ci wàllu wér gu yaram xam ne euh, ca wàllu wàññite bi am déet aussi Lamine su weesoo ñun impression yi ñuy am ñu bàyyi waa mm-hmm. kër docteur ñoom ñu am euh, mm-hmm. la primeur bu keroogee bun nu ko waxee ñoom parce que ñoom seen i nattukaay mooy gën a wér suñuy yos exactement moo tax moo yokku na yokku na mm. c'est vrai savoir mm-hmm. jéem naa woo un peu kilifa yi laaj leen voilà tout d'un coup ñu doon am cinq ak sept ñu tëb dem vingt dem dix mm. ñu ci la ñu ma xamal ne sax ne bo gisee loolu am yokku nañ li nga xam ne moo di li test yi donc ku yokk limu test yi très certainement ah. nga nga nga gis gis nga gis lu ëpp la nga daa gis way donc foofu la ñu amee euh, don euh, information boobu hmm. moo taxoon ñu appréhender la hausse spectaculaire constatée ci li nga xam ne moo di euh, cas yi Ziguinchor xëy na tamit nañ leen jéem a jege ñu wax bi lu tax depuis deux ou trois jours aussi voilà constaté wuñu que ni Ziguinchor am na démb sax signalé wuñu cas Ziguinchor barki démb defe naa naka noonu il hmm. y a certainement une explication à ça am

ci ci ci taux bi nga xam ni day xaw a nag yëg tuuti ci bakkan yi ci rot ak lu ko waral nag ndax mbiram ñàkkum plateau technique la wala ñàkkum euh, une bonne stratégie de lutte la wala lan moo ko waral. en tout cas ci jamono yi nga xam ne xëy na ngi doon door lii di jëm ci wàllu mbas mi déggoon ci déggoon ngeen ci ñi nga xam ne ñoo nekk ca euh, ñoo yor wàllu wér gu yaram ci région bi waxoon nañ ne xëy na centre de traitement bi dese woon na li nga xam ne moo di ay ay ay équipement ci jëm ci wàllu personnel ci jëm ci wàllu. Euh, li nga xam ne moo di ay jumtukaay. Mhm. Euh, fan yii sax yaa ngi dégg ne ñu ñu ngi teg ci suñu xibaar yi. Mhm. Euh, ki nga xam ne moo yor lépp jëm ci wàllu coordination synthèse sous section hôpital régional bu ñu wax ne Ziguinchor jamono ji dese na cinq spécialités yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen soxla ci jëm ci wàllu prise en charge coronavirus bi. Mhm. boo jëlee hôpital régional bu Ziguinchor amuñu cardiologue jamono ji te cardiologue doon na ki nga xam ne day intervenir nga xam ne moo di prise en charge ñu amee coronavirus. amuñu urgentiste néphrologue amuñu ko. donc Euh, ay ay manquement la yoo xam ne xëy dana impact ci li nga xam ne moo di prise en charge feebaru coronavirus mm-hmm. donc loolu c'est des actes à prendre en compte loolu li weesu loolu li nga xam ne moo di centre de traitement bi ci boppam mm-hmm. xëy sax ministère de la santé def na ci ay effort mm-hmm. def équiper li nga xam ne moo di salle de réanimation bi quelques lits def fa oxygène ginnaaw bu am coow bi ñu jógee mais ba léegi des na xëy hmm. boo gisee ñu commencé li nga xam ne moo di prise en charge à domicile bi dafa fekk ne centre de traitement bi capacité d'accueil bi mu amoon hmm. xëy na bu ñu moom amu ko moo tax ñu ne nit ñi nañ toog seen kër ñu mën leen jël en charge loolu nag bu ñu ko gis xëy na dina am incidence li nga xam ne moo di ci ci taux de de mortalité bi parce que Ziguinchor. Mhm. Euh, am nañu quand même enregistré un nombre conséquent de de morts. su fekkee ne yoratuma. les statistiques exactes. mais quand même on avait enregistré plus de 16 morts ma fàttewul xëy na sa weesu nañ ko jamono ji. Mhm. mais quand même am nañu enregistré nañu décès te li gëna bëri ci décès yooyu ñaari aspect moo expliquer soit. insuffisance la ay ay jafe-jafe la a jóg malade ne moo di seen très bien ne moo di nombre de bakkan yi rot ci wàllu coronavirus. jërëjëf en tout cas Lamine kontaan nañu euh, mbaa dégg nga joolaa tuuti. <laughs> maa <laughs> ñu waxee jërëjëf <laughs> jërëjëf. ah bon parce que man kasuma ah. yi rek laa ci xam defe naa mooy mooy nuyoo bi wala. maa ngi maa ngi dal Youssouf Bodian daal ci ci WhatsApp bi léeg-léeg mu jox ma ay vocabulaire. Ah, Lamine nag il faut nga euh, di foras lëf ci yenen kalama kàllaama yi nag nyare fa bëggee ñaareel ak <laughs> Ba en direct de Ziguinchor ñu koy jaajëfal di leen gërëm mbokk yi ci ànd beeg RFM <laughs> Abdoulaye Diop ci kanam tuuti antenne beeg auditeurs yi. nañ ñaan pour ficuke duniya bɛɛ bɛ don a la ni jagɛrɛ kuntan ka taa korona no ficuke subhana Tala mooy wane boppam ngir ñu bàyyi xel ci moom waaw yàlla na ko fi yàlla jëlee corona bi lee waaw. lu fi jugee. Covid na àdduna corona tax joxe loxo xewi na faagarul bañ kenn wàll la te <coughs> fexeel sori ma. seet la ñuy ñaan ci réew mi nañu seet ci xol yi seet ci kër yi téye xale yi ci biir kër yi waaw waaw ndax feebar bi di ko fi jëlee. muy séddoo séddoo séddoo yàlla ñoo ngi lay yi golo yi saytu lekk lu seet saxo raxas loxo yi ñu booloo ci xeet bi jóg ar sunu xeet muslu ci quarantaine mooy sunu karange déglu li lay dikkal na korona bii du foo ci du baale Who could you live for? Mimi sanka hatuna nafijuke korona biek sina fisunureu nafijuke galayo bulkohe mandalarei nafijuke fakaru kan faju fakaru kan naa ci biti sunu boole ba ñoo ko mën. lii de borom bi moo ñu ko teg musiba di gën laal bépp xeet lu koy faj ba ca guddi jaam yaa ngi set li ñu mën a aar saxo moytu farlu gën a set. Ablaye sama benn xarit jaata Tamba mu may jéem a gàgganti fii wax na ma nu ñuy waxee jërëjëf ci joolaa mais prononciation bi lay bañ wax ko rek gars yi daal di zappé rajo bi dem di jàpp fereen ne daal. di sali fanfan <laughs> moy jërëjëf bon quelque chose comme quoi ñuy ziar sunu mbokku jola yépp ak mboolem xeet ci Sénégal di sant sunu borom bu baax nak ndax xam ngeen valeur yoy mënu jox machallah allah cette diversité waaye te euh, kalanté gi ci biir euh, mu fekk rek ñu wara xam nak euh, li nu am. 88 628 14 14 ci ngeen di andé ak ñun ci ñuy fàttalante rek colug masque yi <laughs> Ablaye juróom di wéru masque. Euh, vraiment corona mom li may di daal wax sa booxul ma corona yalla na gaaw dem parce que nak mu ngi bëgg a yàgg ca yëpp ngi mujj doon course de fond niko ko euh, euh, socio anthropologue bi waxe docteur Ndak Diop nee na yëf yi ndeke du vitesse mo waral ñu bari di woné tay relâchement yi donc ça s'explique et du lu spécifique ci Sénégal mais c'est dans tout le monde entier amna ci ak tay mënul ñak waye ak jógaatit day am parce que Avec notre intelligence, notre inventivité, notre solidarité, nous vaincrons cette bestiole qui se croit humaine. Maintenons notre propreté, buvons régulièrement de l'eau, évitons de se serrer les mains s'il le faut pour nous maintenir en bonne santé. Gagnons cette guerre contre le coronavirus. Prions pour les victimes et fêtons la victoire du monde uni. Ça existe. 33 849 16 48 aw là la ndax serveur bi La mel ni tey daa xëy sant wala jaw 33 849 16 40 wala 88 628. léegi nag DJ Ablaye Diop mu eggale programme bi. <laughs> ma Cheikh Abdou Ndiaye Touba di wax yaa ngi animé ma ne ko déedéet man ca beneen wàll walaa ne de Ablaye jóboon na ci console yeeg yooyu di laalaka léññi Moustapha Seck jot naa sa message daf may laaj ci wàllu transport yi malheureusement bëgguma cee tontu lu lu lalu ci njuumte ci wàllu euh, yàpp nombre am déet ndax nee na gars yi dañ ciy jàppaate euh, loolu la bëgg xam ndax yàpp nombre dañ koy tëreem déet waaw man li ma lay digal mooy bu ñu la jàppee kii jël sa permis da nga koy laaj xam nga nit ki da am say devoir am say droit waaw bul nangu rek mu ñëw ne ko këfet dem ak moom wala ginnaaw wala dëgg da nga koy laaj lan la la jàppee dina la indil ay leeral bu ko defee foofu defe naa ni ci saa si en temps réel di nga xam li nga def bu ko defee nga xool noo koy lijjantee Ablaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy bu euh, service digital bu rajo Futur Média nee nañ ma am na auditeur bu làqarti ba jaar ci ñoom biyaay ak euh, soxna Aji Michel <laughs> euh, ñu jéggulu kon tey ak serveur bi asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku. Alaaji a Mbay Mbàkke bool. ah sëñ Xaas noo def waay. waaye dina nam deux ziar rek. ah ñoo la raw xaas da ngaa réer quoi Fadi. non temps yi taw bi dëkk day taw rek nag Alaaji <laughs> taw nag warul tere kenn génn gis nga. ah yeneen réew gaa yi dañuy liggéey de dinañ dem dox seen soxla de. ah waaw waaw bul toog de toog ah, jamono ji du jamonoy toog ah. dëgg dëgg neexul de. ah ñun tey xool heure bi ñu xuus ñëw waxal leen journal bi. <laughs> wallaay ndeysaan moom te yéen moom jaaraama yéen rek. <laughs> bisimilah Gass mais Jola ni ni waxee jërëjëf moom. comment. Jola ma ne ni ni waxee jërëjëf. ah. xam naa kon ko wax eh, yéen ren ak jàmm kon xam naa ne moom dana doy waar lool. <laughs> moom kay. Eh, en tout cas am na waaju ma jox clé bi te nee na j'ai bien prononcé kon alhamdulilah. <laughs> alhamdulilah mais daal mu daal euh, alaaka. Mm-hmm. comme ni nga fi nga daan daal fara yi xam nga juróom benn weer ñu dëkk ñu dëkk ak euh, ji. métti mm-hmm. na ci borom kër yi di doom yi. Mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne vraiment seen liggéey yëpp dafa nekkoon ci wàllum xew yi moo daan luwee base. ñi dee matériels yi ñi dem ci xew yi xam nga yooyu dafa métti. moom kay ñu laal bari na dëgg la. vraiment vraiment daal tawat ji daal moom dañ ñëpp xambuwaat ñaanaat suñu borom suñu borom mm. jëli ko. Mm-hmm. ndax ñi moom demee réew mi moom gënul. am moom yëguñu ko waaye ñi nga xam ne dañoo néew doole nekk ci gox yeeg gox goxaan yi. dëgg la mais ñoom de métti na ci ñoom. dëgg la dëgg mm-hmm. kii daal moom vraiment moo tax gis nga bu ñu bu euh, geste barrière yi luñ koy gën a di respecté rek léegi ñu gën a continuer wax ñu continuer waxtaan yi fent nag ay formule yoo xam ne dina may nit ñi nag ñu ñu liggéeyandi aussi ñaari mën na ànd waaw parce que comme dañoo war dund ak moom. vraiment nañ bàyyi nit ñi ñuy dakk masque di ko respecté. même di dox di dox seen i aaj parce que. mais bu ñu bëggee affaire bi. waaw ñuy réfléchir ensemble. secteur bu ne ñu xool lan lañ ko mëna mayé mu noyi tuuti liggéey. bien évidemment avec le respect de ces gestes barrières. vraiment lu mën a la loolu daal dana gëna dimbalé réew mi dana gëna dimbalé mm, population deug la deug la jërëjëf. benn benn ñi lay ndokkeel baax di la ñaanal daal vraiment. amin amiin xaas amin amiin ñu bokk lépp way jërëjëf jërëjëf assalamu alaykum maaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. sëñ Assane Gueye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. Baara ndongal Naar fii ci ah sëñ Sow ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi lay nuyu bu baax di leen gërëm. jërëjëf. di rafetlu waxtaan di leen jaajëfal rek ci émission yi. Mm, alhamdulilah. di leen wax jërëjëf rek yéen waa jërëjëf jërëjëf. allah. jërëjëf waay. di fàttali mbokk yi rek ñu gën a respecté. Mm-hmm. comme masque yi yi rek waaw. boo jógee keneen raxas sa loxo bala ngaa. Mhm. njaboot dëgg la surtout loxo yi am na solo. waaw surtout loxo yi loxo yi nay set rek waaw parce que mooy loxo moom mooy indi yeneen microbe yëpp sax ay. biir yi méttee biir yu daw ak lépp waaw. waaw ñu boole ci ñaan ko defee nag. bu taw mm. bi di wàcc yóbbaale ko. mu mhm. ba ba ba faw. waay amiin. ci barke Cheikh Naar Diagne ñu ngi koy ñaan daal amiin amiin amiin yaa moom yàlla baax na daal. jërëjëf yàlla mën na ko. nan gën a góorgóorlu rek. a takk masque yi daal ndax am na ci solo lool am na solo am na solo masque yi ñu ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñu ngi lay delloo ziar bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf yéen jàmm fagaru moo gën faju mm-hmm. amna na solo <laughs> jërëjëf Jibi Sey euh, assalamu alaykum wa alaykum salaam. bismillah seigne bi. Laaji hasan waaw. ñi ngi ziar ndongole Ousmane mi ngi lay woy marché bu Mbour. ah seigne Diop ñi ngi ziar ba yalla yalla nangu ziar ñi ngi rafetlu seen taxaway ci mbir yi. alhamdullilah fayma lima xawa ma xaw a jaaxal ci coronavirus bi dañu manam hmm cet dana tax yalla dimbali la waaw. mais fi ñu sun marché bi bu tare bu tawul yeb day bu hmm salde bi fi nekk bu fekkee ne salde bi fi nekk yéemi na loolu doy na waar. loolu ban marché la marché Mbour central marché central bu Mbour. waaw. Mhm. démb na bi ma desoo fii nii dégg nga dama dégg ñu ne dafa am benn tuyau boo xam si ne dafa bënn fii xaw ma laa ci côté ba la leen nii yoo xam si ni ñu ngi koy romb. Mhm. ñu ngi koy romb gauche droite te waxuñu ci dara te ma dégg ñu ne feebar bi moom. waaw waaw. boo seetee rek yàlla mën na la cee dimbali. mais organisation marché bi nag ñoom euh, war ngeen am kuréel goo xam ni. dafay jóg nag xool ñan ñoo war a saafara lool ñu dem dex ko xam nga il faut il faut que ñu anticiper sur beaucoup de choses. Hmm. voilà gisoo lool non loolu de gisuma ko fi moom. ah ah marché bi nag xanaa am na nag kuréel gu fa ne wala. non kuréel boobu ku nekk da ngaa bàyyi rek tuyau bi rek muy ball jëm sa kaw ñëpp toog di xool waaw bool boog salte boobu <laughs> yenn saa sax da ngay gis fii muy taw sax mais dafay am ñoo xam dañ ci profité xaw ma dañ ubbi da ngay gis da ngay gis ndox moo xam si na koy nooy sax mu leer na lii du ndoxu taw la xam nga loolu jaaduwul day gën a yokk mbir xam nga jaaduwul beneen bi mooy wàllu coronavirus bi mm-hmm. li ma ciy wax mooy dafa am benn mag bu mosoon dama xaaw léebu nag laa lay xaal léebu waaw dafa am benn mag boo xam si dafa toog ay xale nekk ci kanam yi nekk ci ginnaaw mm-hmm. mu ne xale yi gestu leen gaynde gi xale yi gestu gis muyum xar mm. mu del leen ko répété waat xale yi gestu gis muyum xar mm. beneen yoon nag bi mu leen waxee gaynde gaa ngi ñëw xale yi daal ne ah kii dañuy nax rek ñu gees ne ñu nekkee gaynde la mm. mu ñëw faagaagal ñëpp <laughs> maanaam coronavirus bi nag liñ ci war a jànge mooy suñ kilifa yi nañ ñuy wax dëgg mm-hmm. ñuy wax dëgg buñ dindee wax safaan bu ñu di ñu wax chaque jour safaan bi di ñuy wax chaque ba hmm. bu yàggee rek buñ bëggee ñëw tëb rek dugal ñu dëgg rek day xaw a day xaw a day xaw a jafe hmm. loolu nag moo ñu xaw a dal ci ñoom daanaka liñ leen lay wax ñoom buñ buñ buñ soxlaa daal buñ ñëwee daal dañ la la wax a wax a wax a wax ba wër la ba wër la yow yan kilifa xanaa kilifa politique yi ngay wax waxoo kilifa kilifa kër docteur waaw waaw kilifa politique yi kër docteur yi kay moom macha allah yow kay mais la yi rek bul déglu <laughs> <laughs> <laughs> ah man nag man sama auto du paan ma ko yóbbu ci menuisier bi di wax dëgg yàlla. <laughs> mais yow su numéro soxla woon naa ko <laughs> da ngay garder li gardel numéro bi Ablaye Diop jox la ko. waaw ah, gardel antenne bi plutôt. ay man du ma déglu politicien damay déglu ñom professeur Seydi ah ñom professeur Daouda ndjay docteur Ousmane gey ah, mais quand même politicien bi naqaar ba local yi jot voilà. Ablaye Diop jërëjëf euh, Ablaye jëlal keneen parce que euh, effort la rek xam nga gars yi tey wii wii di beeg waaw ah nañ jël ba ci kanam rek asalaamaaleykum. Alaaji Assane ziar yàlla yàlla nga ziar. yaa si jàmm baax. alhamdulilah. kii de ku ñuy wax Maam Ngañ la dëkk euh, région de Kaffrine. Maam Ngañ ca Kaffrine. région commune de Nganda région de Kaffrine bi. yàlla dañuy faral di la lool ci say ci Covid bi. di la ñaanal yàlla yàlla fay la lool. Eh, amiin ñu bokk lépp waay. te sàmm la aar la. amiin yaa rabbi. wax dëgg à chaque fois yow la ñuy déglu mais nag dañoo bëggoon benn affaire daal. waaw boobu koy ganda si. Mhm. diggante Nganda diggante Nganda Jama Gaajo. waaw. am nañ fi benn yoon boo xam ne foofu lu ma la lu ma la boo xam ne marché la. Mhm. lu ma samedi bi à chaque fois gars yi bu ñëw foofu bu tawee crédit pour nga oto jàll rek. waaw am benn problème. Mhm. dañoo bëgg état bi daal bu ñu si mënee dimbali li laay wërësoo lii. waaw. jàpp parce que réew lu ma am doole la bu am ginnaaw la frontière ak yoon waa baaxul daal. yoon bu baaxul benn kàmb bu mag mag moo fa ne. ak kàmb waaw ngànd ak jama gaajo. ngànd ak jama gaajo. waaw. benn kàmb la boo xamante ne bi daal. Mm-hmm. nu ko seret di jéggee wala oto am na benn bi sax ci yow taw bi paase nii rek benn oto dig na ci benn mini car. kàmb googu naa waaw Omar na ko wax de loolu. xam war nañ caa wut pexe nag. malheureusement kooku rocceeku na mais nañ jàppale waa Kaffrine ci loolee également. Hmm. ak kàmb bu dee kàmb kese la koy warta tën ak nit ñi war nañ ko mën a remblé daal di fooy dër def ab dër boo xam ne daal même bu dul goudron pour le sax dina dina yomb jaar quand ndax euh, voie de communication yi mooy may développement ak yokkute du ñëpp mën a xëy toog salaire jot ñu fayeeku ji daa ñoo xam ne bu ñu jógul dem waaw dem ak dikk du ñu jaay du ñu wuti ngir njaboot yi dernier auditeur assalaamu oui euh, waaw kooku. maa ngi na nga jaar en fait man benn Diakha journal laa di di la déglu bu baax a baax a baax. ah très bien. di la sopp. ah jërëjëf waay. ñu ngi lay ñu ngi lay déglu chaque suba. alhamdulilah. <laughs> maa ngi jaay ci VDN bi. ci VDN bi. la VDN bi laay jaay waaw. observateur na jar de dégg nga. moom la moom mooy titre bi. <laughs> très bien <laughs> mooy titre journal bi. macha allah. a fait ñu ngi lay ziare baax a baax. jërëjëf. yow rek la ñuy yaay yaay suñu référence. alhamdulilah. waaw bu bul coupé dégg nga ah? incha allah voilà ok Ablaye Diop jox la ko di la encouragé xale yi Dóor waar rek waaw dem jaay say journaux Dóor waar boole ca màndu dem xaar yàlla moo yor ñëpp mu barkeel ba ñu dugg ci leneen loo xam te ni day wàññi sa ngor sax ñu lay dugal ci ay kasoog di la football di la dóor ci commissariat yeeg voilà loolu wax dëgg yàlla jeune boo xamante ni daal yaa ngi ci yoon woowee ñaan nañ la nga teggi teggi ni wi nag mooy jàngi métier wala wuti xam-xam. Ablaye Diop mo nekkoon ci technique bi El Hadj Sane ci micro bi ñu gërëm Yassine euh, Thioun bu baax euh, gërëm bu baax euh, Barthélémy Ngom ak Hadj Ndiogou Diène ci gàttal toute la rédaction de la RFM ci kanam tuuti 10 heures Georges Déthié Diop ak Adja Awa Mbaye dina ñëw ak yéen ci coronavirus tolluwaayam Sénégal ak le point le ministère de la santé 12 heures Souleymane Niang benn waxtu moom Barthélémy xam naa du ñàkk wala Hadj Ndiogou ñu yendu ak jàmm. <laughs> Radio Futur Média. 94 FM. Dakar.